am bésu korité gi euh, ngi sant borom bu tedd bi di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa di sant sunu sëriñ di sant sunu yaakaar xaadimu rasul ñu ngi ziar kilifa diine yépp di jël ziar boobu di ko teg ci loxo Cheikh Mountakha Mbacké. tasaareel nu ko kilifa diine yëpp mu jottali ni ko sëñ Babacar Sy Mansour ak bépp kilifa diine maa ngi nuyu sénégalais yëpp maa ngi leen di balu àq maa ngi leen di wane ni jéggal naa leen te ñaan yàlla nanu wax ni masaali ku fi ñëw sa xol sedd daaxam ni senegaal yàlla may na leen nan la leen yàlla maye am na nu mag ñu baax ñoo xam ni tax na senegaal Sénégal war nu ñee kenn si diine rawatina nag sunu yaakaar Cheikh Ahmat Bamba Masalik gi ndamu lislaam la te bu nu fàtte mukk ni jàmbaar yu baax yooyu si dugaloon seen loxo di sunu yaakaar Cheikh Salih Mbacke yàlla na nu ko yàlla fayal di sunu yaakaar Cheikh Mamadou Lamine Baara di sëñ Cheikh Sidi Makhtar moom mi nga xam ne li nekk def na ko si ba jumaa ji pare di sëñ mu Muntaxa mi nga xam ni moo mas toppaatu liggéey bi ba yàlla may ko mbégte ak cër bu rëy mu taxawee julli gi fii nu war julli kon nanu dellu sant yàlla nanu dellu xam ni jamono jii Sénégal li ko jig mooy jàmm bu leen fàtte ni démb senegaal amuloon woon te senegaal booba ñëw Sénégal démb amuloon woon or ñëpp bëgg ñëw senegaal jafe ci àddina bi mooy jàmm nanu yéenante jàmm ni ko sëñ Moustapha jàngale nanu jël sunu xol bi dugal ci sunu moroomu jullit yi nan leen yéene jàmm suñ leen mënee dimbali nan leen dimbali te yàlla tax loolu mooy li nga xam ni moom la sëñ Tuubaa jàngale lislaam ci boppam di ay ponk yu mu taxawal kon ñi ngi balu ak ñëpp te di jéggalu ñépp te di sant nag di gërëm jëwriñ bi nga xam ni moom lañ teg si liggéey bi Alaaji Mbàkkiyu Fay taxaw a taxaw bu rafet tey julli gi ñépp bég nañ si julli gi waaye nag jaar na ñëpp ñaanal Cheikh Moustapha Mbacke yàlla na fi yàgg te ku ko déglu ki nekk sa xel dana dellu si yàlla sa xel dana dellu si lislaam sa xel dana dellu dana dellu si li nga xam ni moo ëpp solo si àddina bi mooy yéenante jàmm mooy gëm yàlla mooy bàyyee sa bopp sa boroom loolu ko sëñ Muntaxa waxoon moom la wat moom la wane sëñ Muntaxa laay teerale di ñaan yàlla na fi yàgg te wér moom ndamu lislaam bi la lislaam bi yépp la doon seen ndam te mu bokk ak kilifa diine waaye nag yàlla may ka loo xam ne addina yëpp nangu nan ko ñëpp xam ni moom leen naka ñor jaamu boromam liggéeyal Cheikh Ahmad Bamba ba du texli ko ngërëmam yàlla na nu ko yàlla fayal yàlla na fi yàgg téwéet moom ak kilifa diine yëpp jërë ngeen jëf